rek bon d'abord maa ngi gërëm bu baax di sant di féliciter son excellence le président Macky Sall pour avoir initié waxtaan bu mu mel nii tey fii ci Sénégal parce que tey ji kenn mënul ñaaw lu bés bi bés bi moom képp kuy sénégalais dund Sénégal bëgg Sénégal bëgg réew mi bëgg avenir réew mi avenir réew mi soxal la waxtaan bi ndaje bi tey daf daf la war a neex parce que mooy ndaje bi wane ne Euh, président de la République xam na responsabilité am bu baax xam na responsabilité am si jàmm réew mi xam na responsabilité aussi si si si doxalin réew mi moo tax mu woo ñëpp kaay la ñu waxtaan lii nag waxtaan la wax kaay la waxtaan nag ça signifie pas euh, du force ku bëgg a waxtaan nañoo waxtaan ku bëggul waxtaan tamit mën nga mën nga toog fa toog fu la neex mais nañ xam ne ñàkk waxtaan signifié wul na ubbi nañ la buntu pour nga dem di toj di yàq di jox noonoo non waxtaanoo demal élection parce Sénégal aussi. te ci te ci débat yi man am na loo xam ne point yu bëri xam fa ñi nekk au comme ñu nekk opposition ku nekk am nga sa am nga sa gis-gis ci point ñu war a waxtaanee dégg naa fi ay point ñu waxtaanee mooy ay problème élection yooyu naan euh, fichier électoral wala élection transparente loolu question yooyu pour man question yooyu peut-être nañ ko posé parce que nit loolu la neex nga laajte mais man gëm naa ne question yooyu amul sens parce que jaar na fi élection jaar na fi jaaraat fi changé nañ combien de fois président changé nañ fi combien de fois ay maire changé nañ ne Sénégal élection fi ça se passe de manière euh, euh, claire amul benn problème ci élection te boo xoolee aussi bu baax aussi question de fichier électoral yooyu pour man débat yooyu loolu débat yooyu ancien yoo xamante ne vraiment je pense que concerné concerné wul tey euh, système politique sénégalais loolu dañ ko loolu dañ ko war a dépasser